sunu daje tey bi li ko waral mooy waxtaan ci li nga xam ne mooy sunu waxtaan ci li nga xam ne mooy sunu nekkin fii ak Kër Massar sunu nekkin fii ak Kër Massar euh, ci le mouvement Marak de El Hadji Omar Top ak euh, ak euh, femmes yi tànk yi ñuy jóg pour développer le mouvement Marak ak les massarages tous les massarages de Kër Massar ci tànk yooyu ci leen taxaw pour waxtaan ak nit ñi wax leen li nga xam ne moo nekk suñu mébét pour euh, mobiliser tous les femmes yi nga xam ne ñoo nekk mas Kër Massar ñu ñëw ànd liggéey pour développer Kër Massar ndax il est temps que ñun li ñuy def ñu won leen ko nga xam ne ñu ngi ci ay nag activité génératrice de revenu ci fànn bu nekk riziculture horticulture euh, culture maraîchère Nous avons koy def euh, les cultures fruitières, céréales locales savonnerie eau de javel nous avons fait koy formation commencé avec l'aide avec l'appui du président l'âge Hadji Omar Top Nous passons passé nañ actuellement depuis un an nous ngi des formations. ay formation formation Euh, fi la ñuy teg suñu tànk nga xam ne euh, bu ñu ñëwee di ñu laaj dinañ am li nga xam ne war nañ koo mën a teg seen loxo forma à partir de formation yi nag danañ commencé nag exercer li nga xam ne dañ koo jot a jàng muy horticulture ba yàlla def na euh, waa chambre des métiers ñu amoon ci ay bourses yoo xam ne plus de cent bourses yi yi ñu jot a am ak yi nga xam ne mi ngi ñëw ci deuxième phase bi yàlla def ñu am ci ay bourses ba ñu ñëw inspecté ñu ba xool sunu li ñuy liggéey fii ci mer ak dëkk Omar Top. bourse bi ñu toll ci saa bourse bi ñu leen ko joxe waa Marek rek ñu ko seq wala dañu ko tasaare ah, bi ñu ko joxee euh, li ci ëpp indi nañ ko ci le mouvement mais après doon ko tasaare parce que di nga ci gis nit ñoo xam ne sax bokkuñu sax ci Marek mais comme booy développé Kër Massar doo ne man li ma am rek laay développé da ngay développé ñëpp ci à partir de la di nga mën a xëcc ñoo xam ne dinañ mën a ñëw. Euh, kii dina leen mën a ñëw du euh, mu leen de attiré ba nga xam ne dinañ ñëw bokk ci li ngeen di liggéey. en premier lieu li ñuy jëkk a def c'est le président Omar Top moom ci boppam moo ñu accompagner ñu nekk ci euh, formation yi mu koy fayal boppam ba yàlla def chambre de métier ñu am ci ay bourse ñu ñëw defal ñu ay enquête pour accompagner ñu te ci loolu am na ci ay faveur yoo xam ne am na ci. ndax ñun képp koo xam ne ci ci gagné nga ci la chambre de métier su dans le cadre du Covid jox nañ la ay savon gel masque pour accompagner la avec les femmes avec les femmes mais ci kaw loolu sax nag yemuñu ci loolu bi ñuy def enquête dañu fexe ba xam yow mi nga xam ne yow yaa gagné projet bi bi ñu enquêté képp koo xam ne doon na la accompagner muy sa apprenti euh, minimum diga trois apprentis c'est la banque mondiale ñoy financé pour sen seen euh, euh, pël bi ci qui ki gagné na ci projet bi dinañ ko motiver à 150 000. Le financement banque mondiale pour la chambre des métiers de 35 na millions dans le cadre du Covid 19 ndax dañ pour accompagner les artisans ndax xamna né ay impacté lañ depuis euh, corona bi ñëw ba légui bo seetloo sen activité génératrice de revenus, demeetul nonu lool motax ma jël loolu accompagner ko accompagner ko les artisans lool nak ñun dal ci am patch bo xamné ñun commencé won nañ ci bok ci sans compter patch bi nga xamné le président Omar Top mu ngi don accompagner.